rawatina ñi nga xamante ni ñoo féete fii si Dakar tey nag dañu ñëwoon euh, ziar si Serigne Bassirou Abdoul Khadir euh, nga xamante ni euh, sunu soppe la sunu wóllëre la sunu sëriñ la nekk koo xamante ni it yàgg na lool <clears throat> bi ñu sunu borom boolee mu nekk koo xamante ni jamono bu ci nekk dinañuy diisoo ci. sunu digganteeg suñu borom sunu digganteeg yonent bi salaatu wasalaam sunu digganteeg Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasul ak ci li nga xamante ni tamit mooy wàllu àddina muy les défis yi nga xamante ni yëpp jamono bu ci nekk fu àdduna toll dinañ koy waxtaane moom dafa bokk ci ñi nga xamante ni euh, dañuy teewlu jamono bu ci nekk xalaatam ak gis-gisam mu nekk euh, ku am ambition pour Sénégal ak pour yoonu murit nekk nit koo xamante ni aussi ku am vision la bu sori waaye nag ci ñun nekk koo xamante ni ku am cofeel ci ñun la am ñeewant ci ñun euh, ñu xam tamit euh, ni ko réew mi ñore moo tax jamono bii ci tool bii ñu ne walla ci waar wi ñu ne am ñu ciy déglu xalaatam ak gis-gisam ndax loolu am solo la. jamono bu ci nekk rek moom gis-gisam mooy Sénégal ñun ñëpp ko bokk. Euh, te lu ñaaw xaju fi donc nan la ñuy def ba rafetal ko muy jaamu yàlla ak maandu ak rafetal mais surtout nan la ñuy rafetalee diggante yi je pense que loolu préoccupation bu mag la boo xamante ni moom am na ko te loolu am na solo mën nga mën nañu wuute xalaat waaye warul tax ñu jéggi dayo donc loolu moo tax moom loolu la sant jamono bu ci nekk lu xalaat yi wuute nañu dal na ñu ànd ak yar ànd ak teggin te ñun suñu ba ñu jógee ba tey foofu la ñu teg mbir mi mooy xam-xam teggin ak yitte ju mat sëkk te loolu lañ doon ci ki nga xamante ni moom mooy Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul te noonu la ñuy doxee te noonu la ñu fas yéene doxee lépp lu lool di maye rek ak sago ñun dinañ ko am waaye nag doxin boobu lépp lu ñu xañ tamit ñu jël xam ne àdduna euh, nekk fii quoi que ce soit taxulaa jóg li la tax a jóg mooy nga nekk ab jaamu yàlla bu wér li la tax a jóg mooy nga nekk jullit xaqat li la tax a jóg mooy nga nekk murit sadix wala nga nekk tijaan wala nga nekk xaadiriya wala nga ak loo mën di gëm li am solo mooy sa conviction nga gëm ko te conviction boobu soo ko gëmee daf laa war a booleeg nit ñi conviction bi bu matee ci yow nekk dëgg dëgg nit ku ci nekk la mu nekk su ko fonkee daf koo war a booleeg nit ñi waaye waru koo sorelee nit ñi waaw ah, donc kenn ku ci nekk la nga nekk soo ko gëmee saytu ko fonk ko daf lay booleeg nit ñi waaye du la tàqaleeg nit ñi.